Eh, jël na combat boo xamante ni dimbali ma nga xam jël na combat wan combat la jël. Bombardier yow dimbali ma nga wax waxi Bombardier yow dugal fi waay Bombardier dégg naa. Bombardier moo leen daanoon yéen tamit jël roi des arènes ngeen ñëw jëlaat ko ak fi nga nag non saytaane nga soo ma xeli saytaane nga non non c'est pas waxoo dëgg nga amale am la wax ah c'est pas waxoo dëgg dimbali ma bi muy daan Balla Gaye nan la demee. nu mu demee barki Cheikh. jël combat bi waaj ko. ñëw entraîné sa amul fa Balla sa entraîné wul bi leen leen plaqué ngeen daanu nee leen faju leen ba tane. déglu ma bu ngeen fajoo ba tane ngeen ñëwaat. nañu dimbali suñuy fajoo suñu fajuwul yoonam nekk na lijjanti boppam suñu yoon nekku ci moom na ti boppam di bala kii il tëj gémmiñ gi. koo tëj gémmiñam ma ba Bombardier. kan mooy tëj gémmiñam wala yow waaw. monsieur Bombardier day tas géej moom nag gis nga Eumeu yaa ngi doon wax naa dafay nekk sama goro. si jami doomam jooju waaye moom sama waaye la am na yoo xam ne waru ko wax bu mu tas géejaway mënut a tas géejaway nu mu koy tasee nan lay tasee géejaway. daan daan la dëggee xanaa. non du ko daan ah. du ko daan. du ko daan moo daan Balla Gaye daan la dëggee dóor ko nee na mu dóor ko ba abiti nangu ko ci loxoom. kan la dóor ba abiti nangu ko ci loxoom. la dëggee de. yow yaa ñeme yàlla. Eumeu Sène moo la wax loolu yow. Eumeu Sène ko wax kay ñëpp di ko seetaan. fan la ko waxee. seen signature bi xanaa. mu ne ko yow signature bi nee na ko maa la dóor bañ nangu la samay loxo. seetaan ma signature bi. loolu ko wax nee na ko maa la dóor bañ nangu la samay loxo. waaw su dee ma wax loolu ba bis ba yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm ba bis ba su fekkee da koo dóor la dëgër ba at bi nangu ko ci loxo su bis ba dañ ci xam dara la dëgër mii ma gis ah bëgg na combat bi at li mu wax. mais Eumeu Sène bu tasee géej waay waaye dimbali ma ngaa la ma Eumeu tas géej waay Eumeu Sène a waay yow nga xam ne Eumeu Sène dafa mën a tas gée tas géejawaay bul ma laa loolu ah non bul ma laajatu loolu ah ma am Eumeu Sène neen dafa bëgg a tas géejawaay léegi man maa bëggoon jama géey sax bëggatuma jama géey non bëggatuma ko bàyyi naa ko dama kaa mu a bëgg yow it ba nga naan noppan ko ah yow saytaane nga rek sa bopp bu ndaw bi. Ah, dimbali ma lim la xamal. xamaluma tous ndax ba ki démb nee na la ma wax nga wax nga na ko noppil. fan la wax ma wax waa sa doy na yemale ko fii doy na euh, émission bi doy na lii ma saw lii ma sol nii. mais man ci sañse laa dëkk nga ma da ngaa sañse defal ndànk waaw mooy wuy ma yoo laa man ci sañse laa dëkk bul ne ma da ngaa sañse tey mel ni man damaa mus sa sañse tubaarkàlla macha allah kon boog sañseeti nga boog. voilà sañseeti naa. Euh, kaar macha bul ma catu. kaar kaar. boo géejee daa may daa may daa may kii nu mu ne Alaaji Mbaye 5 millions la ko may. waaw d' accord c' est normal mun na ko kooku ndaanaan la. baleegu la joxagu la xaalis moo géej. ak ah, kii bi appareil bii ma yor iPhone bii ma yor moo ma ko jëndal. moo géej waaw. moo ma ko jëndal bi mu yëgee sama sàcc gi. kon yow ci ñi muy balaloo ci nga bokk. waaw c'est mon suma xarit la sama rakk la voilà nañ ko ñaanal yàlla defal ko jàmm te musal ko cat at làmmeñ ok waaw nañ ko ñaanal yàlla lafal te musal ci làmmeñ ak seytaane ñuy wax na nañ tëj seen làmmeñ sa arrête. boo démb boo ki démb naka nga mën a taxawee ci ci ci télé bi Lamine déclamé ko ngay wax li ngay wax buur nag. xoolal suñu kook nga xam ne suñu bokku la. sa yoon nekku ci loolu su fekkee da nga cee bëgg a bokk nga wax ma moo def ma wax ko moo ko def ma wax ko ko def ma wax ko am na yeneen yoo xam ni. waxaguma moom lan la def xawma ko. xaw ma ko li mu def wax naa ba pare. yow mu ne sàccuñ la rek nga nga nga daf ma metti waaw li ma wax moo ma metti. ku moom xam nga bëgg a ma wax moo ma metti moo tax. sàccuñu la. sa waay xool dama lay wax bul ko waxati ah. non dama lay wax waaw dama lay wax ma waxat loolu ah. yow mii dafa fekk dañ laa yónni ci man nga wax ma ko. fekk non fekk non li nga wax dafay mel dañ la yónni ci man. ah fekk dañ la ci man nga wax ma ko. xaw ma ko xaw ma ko yow saytaane nga yow xaw ma ko saytaane bi nga doon. bul ma laajat loola ah. est-ce que nekkul buur da doon xaar sëriñ bi gisu ko moo tax mu lay. mu lay lu mu mënta dem daal ak lu mënta wax moo xam wax naa li may wax bu pare. fekkee naqar na ko na génnaat maa ngi koy déglu maa ngi koy xaar. te dégg naa yi nga denc moo gën a foofu yooyu waaye yow man li ma ko xamal da waaye yow li ma ko xamal dama koo wax am na yoo xam ne waxaguma ko nga wax lan. te eh, waaye yow lu ma ciy ragal lu ciy ragal lan laa ciy ragal. dama am ñu dégg ñu ne li nga wax dafa xaw a ëpp. xoolal dimbali ma yow xoolal dimbali ma waaye am lu xaw li mu wax moom ëppul. kilifa gu toll ni maa ma doon ko sàcc te ñu ko loolu mos na mën na nekk mu naa ma dan maa sàcc ñu ma loolu loolu métti que tege woo ko càmmoñ tamit lan laa tege càmmoñ li nga réyal xoolal sawa doy na sax yow gis nga yow saytaan nga xaw ma journaliste nga xaw ma lan nga saytaan nga waaye yow dimbali ma sama booy bi ma ñawal sama lii benn booy bu ñu wax Ibba nekk Pikine moo ma ñawal lii doomu ndeyu xaadim at ngañ demba Ibba tam nekk Pikine riris jàkkay ndànk-ndànk moo ma ñawal lii tubaarkàlla masha Allah doomu nday xaadim at ngañ demba ziar naa leen gërëm naa leen di gërëm waa Amérique gépp père Babou at mère Assou Faye euh, at sama waa ji Mafal Baye Fall bu mag bi at moo géet moo géet borom la Vegas tubaarikàlla macha allah di nuyu waa 116 gépp di nuyu sama booy yi ñoom Assane at ñoom Ablaye Sarr booy yooyu yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant at waa 116 ah. waaw merci yoonam nekku ci di nuyu sama doomu nday Dieng Sène waaw maa ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Guédiawaye di gërëm la monsieur le maire ñi ki may ki ga yi di bañ ma di ko tudd te ku ma defal lu baax moo ko monsieur le maire Sall ngaari buur gere lam tooroor Aliou Sall maa ko wax maa tey c'est mon ami ma yaakaar ne kii la Ahmed ah. gis nga yow laay waxal xoolal dama lay wax bu ma fontoo man sama yoon nekkul ci moom monsieur le maire laa wax waaw dama lay wax non non dama lay wax bu ma waxat loolu ah man xaw ma man monsieur le maire laa wax Sall moom laa xam Aliou Sall Sall ngaari buri gare lam toorodo waaw Ahmed Aïdara nee na mooy mayo Guédiawaye moom fa la nekkee fa la nee na fa la dëkk fa la yeewoo fa la juddoo Guédiawaye la dëkk kenn werantewul Guédiawaye la dëkk waaye nekkul maire man mii su ma neexee kon léegi xëccoo maire comme ku jox xëccoo su ma neexee jox xëccoo maire waaw su ma neexee léegi xëccoo maire kon kon ku jox xëccoo maire su ma neexee xëccoo maire mais moom boo xëccoon doo am dara Guédiawaye yow laay waxal ma rek dafa ndànk dama lay expliquer <laughs> non non déglu ma reetaanu ma da ngay ree man réewu ma li ngay café man du ma ko café ngaa ma soq ci woon mais du ma am dara géejaway ah <laughs> ah pourquoi nga ma wax loolu. non damaa xam ne mënoo am dara géejaway pourquoi ça pourquoi ça. ba saa gis mbër bu nekk maire. pourquoi Balla gay 2 ni mën na nekk président. Euh, Sénégal. ah géejawaay. président laa la wax. pourquoi. lu tax mënut a nekk. George Weah nekkul président. waaw nekkul président. waaw ah. léegi Balla Gaye jàngul nga bëgg a wax waaw dama ne jàngu du bees du am na ku nekk fii nee na dafa bëgg a nekk maire te jàngul. la Géejawaay kan la ah xaw ma de. man mii moom na génn wax ko su nekk dëgg la su fekkee am na na génn wax ko. musulaa compa man de mun naa limal ñii ñi nekk Géejawaay nekk ay ay ay politiciens monsieur le maire Sall lekk naa xaalisam Père di Seye. monsieur le maire njaaram laay lekk naa xaalisam Baydi Ba maire Gunaas lekk naa xaalisam at sama doomu ndey Fuuta Sow borom kosom lekk naa xaalisam Géejawaay ñooñ laa mën a wax xaw ma lekk mosuma lekk dërëmam wax dëgg yàlla Mouhamed Prince man ah Mouhamed Prince Serigne kooku sama xarit la sama waay la kooku Mouhamed Prince Serigne la booy booy dama lay wax nuyu naa ñëpp gërëm naa ñëpp di nuyu sama yaay ja ba ca étage euh, fële euh, Angleterre muy Adja Gass at Kumba at kii mm, nu mu tooti Saam Saam Saam Saam doomam suma xarit suma frère maa ngi koy ziar di nuyu sëñ Samba Ndour tam ca Touba borom jaan ji at sama at Ablaye Diop xaas sama seriñ sama xarit séeri sumbulu bàcc li xaas bëgg na sumbulu sumbulu bëgg na xaas waaw waaw ah at kii nu mu tuddati eh, sëñ Madou Seye borom taw feex sama xarit ah, at Gasama at eh, Serif Tambédou sama xarit la ñoom ñëpp samay xarit lan. ay na fi fàllu sama yaay ji oto la ma dig moom. gars yi maa ngi dégg commentaire na gars yi temps yi ñoo ngi laaj naan ko na fi Fallou Fall liiru jaan otom dina ma ko jox sama gars yi da ngeen maa yéene rek ndeysaan da ngeen maa yéene dina ma ko jox sama yaay la moo ma ko dikk moo ma gis ma yéeg ci euh, moto mu ne ma kilifa nga doo yéeg waroo yéeg ci moto. mais lan moo tax na fi Fallou Fall nga def buzz ma ay. car macha allah bul ma catu. bul yow yaa ngi ni bëgg buzz moo ñëw nga fekk ma toog bëgg wax ak man te woo ngeen ma ne ma ne leen daje ci gàmmug Balla Gaye gi voilà loolu yàlla ko def moo tax nga la moo tax nga def bës fi taxaw ñu bëgg a dugg li non baabooy bàyyi ko foofu rek bu ma waxee baabooy damaa rus jabaram mënu ma ko wax dara xam nga baabooy daa xew damaa rus jabaram xam nga jabaram sama xarit la non non jabar sama xarit la mi ngi nii toog nga jabar jam na jabar jaa ngi nii toog jabaru baabooy ngi nii xaw ma lu ma dimbali xoolal dimbali ma Lamine bu fi ni problème baabooy sama xarit la c'est na ami ndax dafa bëgg sama rakk ji ma bëgg ko postu caaroy Poste Thiaroye la ma fa doon. fan yii est lay topp di la filmer. waaw man man de moo taxit lu baax laay def. fu may dugg dama koy xam. fan yii passé nag am na ñu may woo di ma saaga. saaga waaw. non xam naa non non je connais dafa am ñoo xam dañoo soxorte méchant man taalibe laa man taalibe laa. est-ce que buur yónniwu leen. noppal na leen de buur de xaw ma leen yónni xaw ma moo xam man faalewu ma leen man li may def ragaluma ko fi ma jëm ñeme naa fa. naka ngay dimbalee nit ba noppi taxaw di ko wax. Ah, yow sa waay bul ma laajatu yooyu waay loolu man wax naa ko pare jeex na ci moom la moo ma tooñ. moo ma tooñ moo génnee man sàcc ñu ma taxamalu ma dara. dafa am sama benn waay bu ñuy wax Masseer. borom Lougaloo ak eh, eh, Italie doo doomu nday lees de ak Dieye seen kooku c'est mon ami sama faram Masseer sama xarit la borom défoncé ak sama rakk ya nekk défoncé mbay mbay défoncé ak Tafa ñooñu samay rakk lan c'est mon waaw di nuyu ma seer bu baax a baax a baax waaw di nuyu sama ah waa divorce dañ ma bëgg at ah, waa ah, waa asalem asalem dama fa am fan si club asalem dama fa am Sandaga at Sandaga at Colobane yu ñoom as as VIP sop saa yu ma jëmee mu yëkkati ay dàll jox ma as barki Cheikh Ahmadou Bamba as VIP sop at sama benn waa jëm jàkkaarloo te jaay yëre yi damaa fàttali turam na ma jéggal ak ñuy jaay yëre yi ñëpp déglu ma ñu nekk Colobane ku tuddul sa tur maa ngi jégul sama xarit ya fa nekk yëpp barki dem dem naa fa ñu solal ma foofu sañseel ma waa ko man daal lu ma doon def lu lu lu baax war naa ko yokku Assane Fall borom Global Textile non c'est mon ami sama frère yow saytaane nga dimbali ma waa nga am as Assane Fall waa garaaw ña fay dem xaar nan ma xaar maa ngi ñëw ña fay dem ñu fa woon dem ndax du seen place parce que Assane Fall maa ko moom. Lirou ah. géejewaay ñëpp am nañ combat. waaw nga nekk monument bi géejewaay. lan ngay xaar pour jot avance. ku la jotuma avance ku la awma combat jot am naa combat damaa jotugul avance. mag Tafa Gueye 2. te te dégg naa benn paa buy wax ci ginnaaw sax temps yi moom nee na bëgg a dellusiwaat ci làmb ji. muy kan. man bëgg maa tudd tur. <laughs> loolu maa xam nguur nguur waay waay yokki yokku aas yi moo ñu tooñ xam nga père Aliou la xaw moom ni muy yokkee aas bi moom quarante cinq ans doy na. doy na de quarante cinq ans bii lay doy na ku am quarante cinq ans war a bàyyi. yow mais yow nga jël. non non doo déglu ma rek déglu ma. wuli nga jël sa combat ak Tafa Gueye 2 mun a ñaari màgget lañ. boole waaw su moom mi bëriwul ak màgget yàlla ko yàlla jàppale. moom mi bëriwul màgget yàlla leen yéen xaalis ak di leen may waaw baax na <laughs> jël. yàlla ko yàlla yàlla daan nag moom laa yéene mu daan ndax dama ko bëgg may revanche <laughs> moom laa bëgg mu daan ndax Adama juuf waaye dimbali ma ah mun naa daan su góorgóorloo mun na koo daan. mun naa daan Adama Diouf wulli <laughs> su góorgóorloo waaw waaw problème <laughs> Adama Diouf wérul soo gisee ni muy feccee di rege ju xanaa xamoo Adama Diouf Adama Diouf dafa dofoon. soo xoolee mi fecc di xulli bët yi <laughs> ah naan di di ngarale di ngarale fecc façon feccam moom ngi fi Adama Diouf wéeru la ah, dafa dafa ah. Ah. ah sa waay sama moo tax nga ne ma kat mooy sa idole ah waaw waaw waaw si wateef bi wateef bi ko moom yooyu bu ma wax di yëkkan du sa idole yëkkan nu mu nekk sama idole yow nga ne Tyson mooy sa idole moom moo ne ma Lamine moo ne ma tay watu watu Tyson ma ne ko waa su ma neexee watu watu Tyson maa tey dafa feer bëgg sama rakk ji moo tax ma bëgg ko am naa ci droit man ku bëgg Balla Gaye ma bëgg la ku bëggul Balla Gaye bëgguma la Balla Gaye moo waaw Tyson tourné bëggaat ko Baboy Baboy bëgg naa ko léegi ay temps bëgguma bëgg naa ko ndax daa bëgg Balla Gaye ma bëgg la ku ko bëggul bëgguma la Bombardier bëgguma ko ba ma jee bëgguma ko. Gris Bordeaux bëgg naa ko yàlla ko yàlla jàppale mu am combat yéene naa ko mu am combat na jël ci xale yi nag kon fi mu ne comme que mag ñëpp am na combat lan ngay digal ki nga xamante ni mooy la de ni mu euh, jàmmaanloo ak ki nga xamante ni mooy Eumeu seen bëree daan te yàlla na ko yàlla defal kese mu jeex du leneen mu bëri daan yàlla ko yàlla jàppale mu daan ko ndax maa ngi dégg keroog ay saytaan yu taxaw naan la dëggeer nee na da laa mere patati pa la dëgg su ma rakk la su ko neexee am na peut-être mere ma waaye man du ma mere sama rakk la. kon mere gi ñuy dëgg la. lam ci mere gi non non loolu du dara yooyu affaire sew la te xam naa ne ba mu moo ko wax waa déglu ma ndax ba ma ñëwee ba léegi nee na gisuma dégguma lool la rek. lu tax loolu te mu nekk sa non non sama rakk la ñoom ñëpp samay rakk la àdduna amul solo yow saytaan nga dimbali ma sama rakk la dimbali ma jeex na ñépp samay rakk lan yàlla na yàlla defal jàmm te musal saytaan ak làmmiñ ak cat nanu boole xol yi rek nekk benn bokk ndey ak baay ku ci bëre daan. xam nga ne bis ni ki tey sama mbër. ah kon yow bis mi ngi yaay sama reporter. nooy def Lamine. Lamine man. lamin say dafa am toq saytaane. Lamine dafa am toq seytaane ménageur. nga ne du ma sa. ménageur. Lamine. waaw waaw léeg tuuti mu xaw a nekk sama ménage waaye dafay xaw seytaane saytaane léeg-léeg. Bombardier dimbali ma nga wax waxi Bombardier Bombardier su la wooyi nga dem sama lu sama yoon demal lu sama yoon demal dala woo demal lu sama yoon lu sama yoon sa maa ngi lay doy na nag dimbali ma yaa ngi may du wax loo rek maa ngi ratatati rek doy na yàlla na la yàlla defal jàmm seen site bi waa wasaare maa ngi nuy waa Amérique gépp ndax wasaare bi Amérique gépp ko suivre a ah. mhm. ah oui ah oui Amérique gépp ay suivre wasaare du nuyu sama rakk ja bi nga demee ñoo la njëkk a ma njëkk a jël muy ay tiyam sekk moomu booy bu baax te mu nuroog Lamine bopp bopp mu ndaw boobu moog Lamine benn la dañoo nuroo <laughs> seen bopp yu ndaw yooyu te et puis moom day animé ci rajo foofu ah man invité na ma ci rajo bi eh, New York ndaa naan kul fadlin la et tamit wax dëgg yàlla maa ngi gërëm euh, sama waaja booy bi Mor Ndiaye ad ad affaire waa canal ñoom ñëpp maa leen gërëm di gërëm coxo ah di gërëm waa New York yëpp at daan sama rakk ja ah yàlla na ko yàlla defal jàmm bu baax la daan te très gentil daan sa yoon nekku ci waa at kii nu mu tudd waa consulat ba ñëpp maa leen di gërëm consulat ba ah Penda gise ah Margot ñoom ñëpp maa leen gërëm ñu nekk consul ba yëpp maa di gërëm gërëm naay at père Babou sama papa ja at kii ah père Babou waaw mooy papay Balla Gaye 2 at sama papa la at at kii tudd mu tudd su fay Faye mère Assou Faye at xale yi ñoom daam ñoom ñëpp ah, ah ñëpp gërëm naa leen sant ah Lac de Guiers 1 suma grand frère waaye maa ngi koy gërëm di ko nuyu Lac de Guiers 1 ngi Amérique wooyu gërëm naa ñëpp waaw kontaan naa ci yow ok di gërëm waa géej way gépp nag hmm, yàlla na yàlla defal jàmm tan mooy saytaane ak làmmiñ saytaane baaxul kan du sama yoon ci parcelle <laughs> ok jàmm xewal